Mais Yafatou, qu'est-ce que ça te fait quand tu vois Alune se produire sur scène comme ça euh, Non, vraiment, ça me, ça me ramène à 25 ans en arrière. Hein, vraiment. Et je sais pas, est-ce que moom day jouer Dakar fii vraiment tu sais que am na benn génération boo xam ne ñun par exemple suñu génération xale yu génn yu bees yi xamuñu leen. tu comprends ah, du ñu. wallaay dëgg la de. mënuñu ñu fecc loo du dëgg. mais soo waxee fecc nga fi be. nga fi be. ba gis nga ko yaru naa moom vraiment c'est parce que way dafa war a li mu wax léegi dafa am solo. dëgg la euh, way dafa war a yeete. Mhm. apporter dara société bi. parce que boo demee ci dëkk yu yenn dëkk yi. du n'importe qui mooy woy mooy li mu wax il faut nga woy lu mën a jëriñ société bi bu dul loolu dañ lay interdire sax doo mhm. xalaatoo ko sax mhm. alors loolu moo tax euh, Euh, genre yi dañu vraiment yaru naa moom. <laughs> da nga war a dekkalaat daal. waaw incha allah ah. ñu ngi ci benn projet. et puis ngay organiser fii dara. waaw no comme euh, aussi dañoo xawoon yàgg. mais ñëw nañ nag ak euh, ay bagages yu bari yoo xam ni que macha allah interpellation yu bari na. comme ni nga ko waxee léegi dafa am benn génération boo xam ni que vraiment ce son des connaisseurs au jour d'aujourd'hui ñu ngi seen bureau yi. ils sont devenus des PDG des ministres même président même si on parce que c'est la même génération donc comprendre nañ ni que il faut am fu ñu nekk ñun fay fekk mais ak beaucoup de discrétion ak beaucoup de classe parce que li xewoon te ñu daan ko dund euh, ci ay 1999 1997 jàpp 1999 merci donc loolu dañ ko war a delloosi et il y a des places pour ça je pense que incha allah on va s'y pour euh, dekkalaat cosaan. voilà très bien incha allah alors yaa Fatou vous êtes mère de famille te instant bi on note beaucoup de dérivés surtout ci xale yi actuellement des fois nga gis xale bi ñu ne def nañu lii xale bi def na laa dérive yi bëri nañu loolu ci biir Sénégal étant mère de famille qu'est-ce que ça vous fait. alors euh, vraiment comme li nga wax ah comme euh, comme tout le monde da nga si am sentiment de désolation ah et, et de tristesse parce que aussi. da ngay am impression que suñu réew dafa mel ni àddina daf ñu këf. dëgg la euh, te loolu ku nekk daf ci war a jéem a béy waaram euh, bu ñu xeeb lu ñu am. parce que nit ki lu lay këf bu la lu la yomb këf rek mooy boo xeebee li nga am euh, ñun bu ñu xeeb suñu bopp bu ñu xeeb suñu Sénégal et ñu def effort ci suñu doom yi. Euh, dëgg la on est attaqué de partout hein y a l'internet euh, il y a tout mais néanmoins. et on a vu quelques mois ce qui s'est passé euh, à Kaolack justement. waaw ouais, exactement donc avec euh, américain là. voilà voilà te loolu yëpp li koy indi. Mhm. mooy la recherche du gain facile. dëgg la il faut que euh, ñu gën a am ay modèles yoo xam dañuy won ne euh, gain facile bi rek yoru ko parce que man je suis triste quand j'entends des gens dire que Sénégal xaalis. kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti ah, je suis triste quand su ma déggee loolu parce que loolu naxe mbaay weesu ko ah da ngay dégg même dans le langage courant nit ñi bu ñuy wax naan euh, ay xeetu dóor la ay dóor la si c'est c'est des langages yoo xam dañ koy utiliser ñu defe ne dafa simple mais dafay wax ak inconscient wu nit ki mm-hmm. euh, te loolu parce que nit langage la en indi ils ne se même pas compte de l'ampleur ci li ñuy exactement conséquence yi parce que ñu yaakaar ne lépp lu war a sotti rek dafa war a gaaw léegi euh, nekk c'est-à-dire booy xool tey suñu réew nit ñi amatuñ sax patience gëmatuñ sax ne euh, suba dina am loolu lay niru ah te yàlla dafa wax ni dundu leen comme si mm-hmm. euh, suba ngeen fi jóge waaye dundu leen comme si du ngeen fi mës a jóge aussi suba dafa am dañu war a gëm ne suba dafa am wóolu yàlla ne suba mën naa nekk. mais est-ce que du suñu société bi moom la tëkkee noonu. ba tax ñuy wax waxu yoonu ndaw du gaaw. waaw mais ça c'est la réalité. il faut que mm-hmm. ndaw yi accepté ko. ñun ñi tey aujourd'hui ñu toog ba ñëw fii ñun bi ñu nekkee man comme je ah, man man bi ma nekkee étudiante xalaatuma woon teg seen greffage yi ngeen di teg nii ah wala ay perruque wala mèche ñun dem nañ ba pare université suñu lettu mèche. ah wala sax wu. voilà ñun dañ daan peñe rek def ay petite queue. Mhm. Euh, raxas ko set tiire ko takk ko suusu si ginnaaw. daal di peñe mu liis rek jeex na ah, voilà peñe mhm. bu fooree ba foor peñe bu liis lañ daan dem. Mhm. Euh, jiin lañ daan sol ak euh, t-shirt ak body loolu lañu daan sol habillement solo lu ñu woon donc euh, xale suñu yaay yi dañu doon wax xale day taxan jamonoy li craint xale day taxan ñun suñu yaay waaw ñun suñu yaay c'est-à-dire pourtant uh-huh. euh, sañse amoon na ah ñun dañ daan sol ay jin euh, Levi Strauss genre yi lañu toll woon ay kii c'était truc mm-hmm. mais sa yaay dafa la doon wax ne la temps ñàgg la woon dégg naa de waaw ñàgg <laughs> ñàgg waaw waaw mais ak ñoom lan ay dërëm yaay. waa xaalis baleur bu mu toll woon rek ah dafa am dafa am extrapolation ak valeur bi tey parce que jamono yooyu euh, lu cinquante mille mënoon peut-être loolu la cinq cent mille mën tey. kii bi rek a sonn euh, bon changé montant bi rek mais booy xool njëriñ li ci la mais li si amoon importance mooy ñun suñu yaay dañu doon wax euh, matt bi ngay jaaroo boo nekkee mag ba ngay xale nga koy taxam. Mm-hmm. ñu gëm ko itam. Mm-hmm. parce que man aujourd'hui damay gis ay xale nga gis xale boo xam ne amul kër. amul dara mu yor téléphone bu jar un million. wallaay sol lu mu sol rek boo ko évaluer entreprise la micro entreprise la ça ça pose problème ñun dañ daan am da ngay fayeeku sa bourse mille moo doon bourse entière tu te débrouiller pour économiser ci. Mm-hmm. te di nga si yónnee sa yaay di nga ba parfois dañuy toog université euh, li ñu naan maafe maçon mburoog euh, gerte caaf. li ñuy lekk dëgg la def ataaya cotiser lekk ko te pourtant. amoon nañu leen moyens de de faire autre chose mm-hmm. mais c'est pas la priorité aujourd'hui man damay wax xale yi xool leen li ngeen di dund li di dundee parce que ñàkku leen mais dañ war a xalaat ëllëg ah du ngeen am tey yow da ngaa war am priorité am kër am euh, foo dëkk am euh, maanaam euh, sa sa sa autonomisation mm-hmm. processus la encadrement aux parents ici ce qui fait défaut mais gis nga les parents on bon dos mm-hmm. mais xale yitam dañu yàkkamti il faut que ngeen bañ a jël seen référence ah parce que ah, aussi fii comme li mu wax léegi ah comme li mu wax dafa am importance yaru naa mhm. euh, dafa wax ne yaral sa doom moo gën nga koy xamal alal xam nga loolu dafa am importance tey na da gis ñoo xam ne malheureusement dañuy xëy am alal seen doom yi nga jël xale bu ndaw di ko jox ay cinq cent mille ay un million kooku bu demee ñeneen ña muy dajeel mhm. malheureusement parce que xale xale rek la donc day bëgg lu yomb c'est toute la société qui doit s'y mettre moi je pense ah euh, naa xam itam ce point de vue par rapport à la violence faite aux femmes bi ci mujj rek barki dem ba la ñu nemmeeku fële ca Thiès benn xale bu jigéen bu euh, exam jam yooyu noonu yëpp boo koy gis euh, lan la lay def. alors man je pense que tey jii violence euh, faite aux femmes boo gisee mu exacerbé wu ah dafa gën a bari gën a gën a gën a gën a bari waaw gën a metti gën a tar. c'est parce que dafa doon dafa doon couvé wu dafa doon dafa nekkoon euh, lu amoon ñu bàyyi ko muy màgg parce que li mu njëkk commencé mooy société bu ñu demee ba ci yàgg dañu war a toogaat waxtaan parce que mënuñu wax rek ne li ñu doon dundee yaa yaa trente ans wala yaa quarante ans nañ ko dundee waat aujourd'hui réalité yi du bokk euh, information yi niveau d'information yi dafa changé mm-hmm. euh, tey jii bu njëkk ba dara mën na xew kenn du ko yëg mais aujourd'hui lu xew fenn àddina bi yëpp si yamandoo du dëgg kon ñun suñu société aussi ak évolution bi mhm. parce que ñun suñu yaay yi euh, fu ñu toll woon peut-être je dirais suñu maam yi suñu yaay yi ñëw eggali combat bi dañ nekkoon ci processus émancipation de la femme mhm. pour que femme génn sax si kër yi mais léegi xam nga loolu c'est révolu euh, génn nañu euh, ñu ngi jàng ñu ngi liggéey ñu ngi utiliser ñu ngi occuper poste yu nekk donc li ci des mooy ñu waxtaanaat société bi parce que société bi Euh, dañ ko bokk ak góor ñi ñuy suñu ay nawle ah mais ñoom aussi il faut ñu xam ne ñun suñu ay nawle lañu parce que la violence euh, foofu nag psychologue bi mooy wax tuuti boo jëlee la psychologie de la violence euh, question wu nawle wante la ndax nit ki koy jéem a noot rek. Mhm. c'est parce que da nga yaakaar ne yaa ko mën. dëgg la da nga eh, ko xeeb da ko xeeb parce que sa nawle doo ko doo ko doo ko doo ko doo ko fontoo ndax nawle nag nekkul ci yem ci doole mën nga ma ëpp doole waaye yoon a ngi fi tam yoon doole la. pour koo xam ne dañ la bëgg a la bëgg a noot bu la wóoree ne kii bu ma ko jéemee noot mu dem ci yoon yoon am na mu def ak man dinaa ko jox cër et te nit ki aussi pour mu jox la cër yow it il faut nga am noo taxawee. Mhm. du dëgg euh, moo tax. Uh-huh. président de bi def def ci politique am ne quinquennat bi may jël. Mhm. dama koy def muy mandat jigéen ñi. Mhm. parce que dafa gis ne équilibre boobu pour ñu reyaat pour ñu am ko mooy il faut jigéen ñi autonome. et puis bon maintenant société nag dafa am lu koy tëggee ñun dañuy mooñee ci suñu sëy yi. que ñun dañu war a. justement voilà. en muñ boobu noonu moom laa doon waaj a ñëw di wax nii. <laughs> Euh, jigéen en général buñ koy sas buñ lay takk. di la sas nit ñi toog ñu di la yedd di la yab daal en quelque sorte dañ la naan muñal te muñ xam nañ ni dafa metti loolu en sociologie est-ce que ki lay muñ loo tamit préparé wu la pour nga dund metti. voilà léegi man sur le plan psychologique mën naa ko analyser sur deux phénomènes. Mhm. Euh, xam nga booy xool ndeysaan gis nga muñ gor moo koy def mooy muñ parce que yàlla moo créé ñëpp te matalewul lépp mais nag suñu càmmiñ yi ñu baal ma góor ñi dañu abusé cest à dañ leen a dañ leen a materné ba dañu dem ba ñoom ñoo nekk au centre de l'existence te ñoom nag xamuñu ne euh, joxe cër laaj sa cër la tudd mm-hmm. du dëgg ñoom ñu jël sër bi cër bi rek aakoom aakimoo ko du dëgg euh, polygamie bi dimbalewuñu donc les femmes sont obligées ah di développer benn corruption affective ah parce que dangay ragal sax mhm. mu ñëw nga mer yaa ngi ko koy ragala won sax parce que ne moo ko ko wone rek mu génn claqué bunt bi nekk bu feneen amee ba léegi kenn sonn la boo meree am na kuy nangu fële et c'est la réalité euh, affective bi mooy euh, di neexal suñu góor ñi pour ñu toog tey jii sa jëkkër boo ko meree sax doo ñeme mer pour mu bañ a dem ça de la corruption affective parce que tu prends sur toi énormément loo xam ne xel mënu ko sax euh, nangu pour que rek ragal nga mhm. sa sëy yëngu wala ragal nga sa euh, euh, parce que ñun sëy la ñu xam mhm. Mhm. ñun sëy la ñu bëgg te parce que jigéen góor ak jigéen dañu war a mottali wante mais waxuñu ne sëy bi mbugalante maintenant l'autre versant psychologique li may wax mooy suñu yaay yi dañu suñu maam yi dañu mës a cultiver uuf góor ñi parce que jigéen na góor jigéen a koy uuf ah. Mm-hmm. ñun ñun ñoom ñoo xaj ci ñun mais ñun xajuñu ci ñoom loolu yàlla moo ko def. ah <laughs> ndax suñu yaay bu baax bu Kiné Lam day wax ne euh, jigéen mooy magasin yàlla bi ñu dénk nit ñi du dëgg donc ñun suñu rôle dafa dafa dafa am solo ñun on est un réceptacle. Mm-hmm. te ñii euh, c'est le c'est le récipi c'est le c'est le ñun one le réceptacle ñoom ils sont produit à recevoir. Mm-hmm. du dëgg. alors si suñu histoire en société ñun jigéen ñi dañu xam loolu ba dañu leen jël uuf leen. Mm-hmm. ñu uuf leen suñu maam yi ñu yàgg uuf suñu maam yi uuf suñu papa yi suñu yaay yi uuf suñu papa yi euh, ñun aussi ñu nekk ci exercice boobu mais malheureusement jamono dox na ba nga xam ne. Mm-hmm. Euh, góor ñi da ngay gis góor gu lay wax naan la. Mm-hmm. Euh, man sama yaay dafa sonn sama kër papa. <laughs> alors góor bu nekk da nga bëgg a jur doom bu mel ni yow parce que da nga fier ci sa bopp. donc inconsciemment quest que tu te il faut que sama jabar sonn pour mu jur lu mel ni man jural la doom ju baax dëgg la c'est ça qu'on appelle en psychologie l'identification à l'agresseur loolu rek la parce que góor boo gis danaan sama jabar yow da nga daj dara yow dajoo dara man sama yaay li mu daj Mais il faut qu'on revienne là-dessus hein, par rapport aux droits de la femme. Justement, la femme africaine a toujours voulu être émancipée. Lolo, il faut vraiment, vraiment, Lolo et on a toujours voulu être émancipée, en, en gros, n'est-ce pas Elle l'a très bien explicité, euh, mais de mon la collègue, mon limfi diagnostiqué, la solution. Euh, euh, solution, bi moi. yéen góor ñi il faut ngeen accepter réalité bi parce que jigéen ñi dafa mel ni ñu ngi dem bàyyi leen. ah bon ah les femmes sont en évolution les femmes ont évolué mais les hommes ne veulent pas lâcher du lest ils veulent pas évoluer fekk ci jigéen ñi. ba oui. Ah bon su ngeen ko deful nag. na waar de. xam nga fu ñuy delluwaat ci matriarcat parce que boo xoolee matriarcat moo njëkkoon am les femmes avaient le pouvoir. Mm-hmm. ñoom ñoo daan jur seeni doom. di ko tuddee seen mhm. di ko tuddee di ko jox seen i sant. Mhm. teg mooy li ma doon wax léegi nii la femme africaine qui a toujours été émancipée. déjà doo gis benn tubaab ba nga xamante ni oh. bu defee tur dugg ci turu yaayam. ba sant santu yaayam mais fii rek ngay gis. ku fi tudd jël turu yaay boole ci. la mhm. Dior ngoone Latyr Diop. wala wala wala Buri Ndiaye. kenn entre autres quoi. fii rek nga koy gis fii ci biir Sénégal ñu bopp de. Uh-huh. société bi moo bindoo woon noonu c'est-à-dire c'était la matriarcat jigéen ñi ñoo yor pouvoir bi jigéen moo moom ay doomam moo tax jamono yooyu jarbaat mooy doonu nijaayam parce que nijaay bi amul kenn boo demee ci jigéen loo fa bàyyi moo ko ku jigéen ki moo ko moom donc yow on demande pas ton avis tu tout simplement un voyageur de passage te gis nga bu ñu toogee ñoom euh, euh. Euh, bàyyi jigéen ñi si nii rek les femmes vont arracher encore le pouvoir loolu histoire la day am cycle. et ça risque de revenir il est même temps que il est même temps que nag jigéen arracher le pouvoir ah, nag fi mu nekk nii il est vraiment temps ah. n'est-ce pas Alioune. ah man de fi mu toll damaa jombi. ah lu tax. Euh, ngeen ñu wër ñu nii rek maa paase ñu nekk deux. waaw ah, jigéen ji daa mel ni jigéen trois contre deux. mais mais c'est c'est c'est important et c'est c'est vraiment intéressant parce que aussi c'est pas pour rien que ñu wax parité donc lii ngeen di développer ci wàllu jigéen dafa am solo. man je suis j'ai été toujours pour les femmes j'ai été toujours l'ambassadeur des femmes moo tax tey lu ne wax leen waaw. mi ngi noonu alors li mu wax am na solo moom day bëgg ñu ñu fekk si ko si li muy wax ni ndax ñun ñoo monopoliser woon wax ji mais Alioune pour revenir un tout petit peu ak euh, thématique yi ngay woy yëpp comme lu si mel ni yaru naa di sensibiliser en quelque sorte les jeunes mais tey jii nii boo gisee li am yëpp est-ce que du. dañoo dañoo changé euh, d'autres mentalités est-ce que les parents ont aussi démissionné de camp non moi je vais dire tout simplement que c'est une question de comportement question de comportement waaw gis nga àdduna moom benn waykat bu tudd Alioune Mbaye Nder bu way nii ginnaaw bi la yàlla sakkee def la nit di la war mooy nga nite te wéyee sam xel mu rafet mm-hmm. parce que ñëpp comprendre nañ ni parfois ruux doomu aadama moo nanguwul ñàkk a tekki nit ku judd ci àdduna nekk ci kaw suuf boo sañoon boo amee sa soxla. Mhm. di ko fajal sa bopp. ma sàmba du la ko fajal ma dem du la ko fajal. nit ki dem di agressé yi sax dafay yàkkamti te nanguwul sonn mais xam sax moo ko poussé ci loolu donte la baaxul parce que nanguwul ñàkk tekki bu sañoon am te xam amul solution peut-être. donte la baaxul mais damay wax ni que parent yi lu ne def nañu ko façon yarin bu baax bu ne parent yi def nañ ko. dëgg muy man ak sama moroom mais tey si tey da am sa njaboot muy góor muy jigéen day gis ñaar ñu sëy lu yàgg du ñu am doom ñu talal loxo suñu borom sëriñoo sëriñu dem fa maa mënoo maa mën ñu dem fa. Mm-hmm. pour yàlla may leen doom. bu doom boobu ñëwee tey jii façon yar bu baax bu ne nañ ko ko yar mais da nga yar ci biir kër gi mhm. mu génn mbedd mi yar mhm. jàpp ngeen ni man ngeen a mhm. am xale bu jigéen bu nekk ci biir kër gi nga yar ko muy sol mël fa benn cëram du feeñ bu bëggee génn baali day jiital mini ba pare ak internet bi fi mu nekk nii dafa bu génnee ci biti dem kër xaytam summi summi mël fa ba dem baali si ci biir kër gi ni mu mel noonu ci jigéen noonu la mel ci góor mm-hmm. ni ngay bëgg sa doom mel ko parfois du ko mel sa comportement yow loolu loolu yow dund nga ko. oui oui oui nga bien sûr xam nga euh, man mais man j'ai toujours dit que. Mm-hmm. gis nga mm-hmm. àdduna am na yoo xamante ne bii doo ko ragal. parce que dañoo nekk ci àdduna te lii am ci société bi rek mooy am ci famille yi te bu kenn bàkku ne lii du ma dal muy man ak di sam morom et la plupart des gens qui ont aujourd'hui un nom. ñooy subir conséquence yu metti yooyu mm. parce que seen doom yi duñu comprendre ni que seen baay wala seen ndey li muy am tur am tur am na limite. dëgg ku sañoon sa doom du bon. Mm-hmm. ku sañoon sa doom lay gën. mais adduna dafa nu ko yàlla bindee te nit ko da koy nangu. dëgg la j'avais au Times Square à New York sa doom wala sa xeet bu taq ci yow lu mu mënti def don't give up. your family. Mm-hmm. on rectifie et on avance. très bien loolu la gëm. say kàddu am na solo loolu di ñaan yàlla que le message va passer et que merci merci.